salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaare di am mbégte jàkkaarloo ak yéen tey seen émission mag bi Dakar ba social ànd ci nag ak association ànd taxaw ñu wéradi waaye tey bi su cant la bi su gërëm la bisu mbégte la ndax jële woon naa suñu benn frère bu tuddoon Ousmane Tall keroog bi ñu ko jëlee yóbbu ko fee ci hôpital Louga mu nekkoon lu metti tànkam ba ñëpp di ma woo naan ma tànkam ba fu mu mujjee ndax dañ ko dagg wala daggu na ko yàlla def na nag faj nañ ko ba tànk bi na ba xel mi nga xam ne demoon na sax macha allah dikkaat na tey jii ñu tabaxaloon ko néeg ca këram fan ko fekkoon ca néegu ñax ba war koo yóbbu foofu ko tabaxal bi ci biir kër ga di sant yàlla rek nag di leen ci gërëm ndax ku santul nit sant yàlla di ñaan képp ku ci feeñ yàlla boo nëbb waaye di gërëm mami Khalifa Kane depuis France maa ngi lay nuyu jëlee siyaara bu baax di ñaan yàlla taxawul te yàlla jàppale la di nuyu sama jigéen bu baax boobu nga xam ne kenn la man Mouhamed Ama suma rakk maa ngi lay nuyu kon képp ku jëloon sa dërëm def ko ci Ousmane moom nga xam ne moo nekkoon ku am wér di xel te tànkam bi métti woon ñu ceene woon ko muy lu métti loo xam ne kenn ku ne jooy na ci tey jii ñi ngi sant yàlla xamal ni macha allah tànk ba wér na faj ñan ko ba wér na ñu war koo delloo nag te néegu ñax ban ko fekkoon nag lan soppi tef ko beneen néeg tey moom la ñuy ànd ak moom dem biir Louga ci biir seet da nga topp ñu bi dugg ci kër bi ñu dugg ci biir kër gi xool avant ak après waaye am nañu mbégte ci ni ngeen ko jàppale yàlla na ñëpp am jàmm siyaar. dellu siyaar. donc am nga jàmm am naa jàmm bu wér. mel ni fii leen taxawoon maag yow jël si woon fi Ousmane Tall ci moment yu doy waar tey différence am tey mën indiwaat ko ci beneen anam tey lan nga yëg tey di ñëwee fi waaw tey li ma yëg moom wax dëgg yàlla mbégte la sant yàlla la bànneex la te li ma yëg daal Fadel foor na mhm. ndax koo xamante ni biñ ko fi jël fekkoon nañ ko ci jéng boo xamante ni keroog ñun ñëpp a jooy ronkoñ daanu na sénégalais yëpp a tuur seen seen ñu jëlee ko fi yóbbu ko hôpital dëgg yàlla faj ko mu amoon ay rëq-rëq ci diggante mbokk yi bañ bëggoon ko génne hôpital man ma ne woon du ci dal ma jël ko yóbbu ko Mbour boobaak léegi def na trois mois et quelque ba tey jii ni stable na sant na nañ yàlla bu baax vraiment Fadel tey daal mbégte la. mbégte la xam nga kaaba bi ci la bañ a léegi sisaay ci laa ko bañee ban gàddu siyaat bi rek ci la bañ a siyaat ba léegi. mais mënul woon a ñàkk sisaay sisaay bi Fadel mënul woon a ñàkk. mais man maa sama man maa bëggatul sisaay man. waaw parce que xam nga ni sisaay loolu ko taxu taxu koo jóg loolu moo ko tax da jëkk Cisaye ay tànku nit taxu koo jóg kon bu ñu demee ba jéngi nit ba chaîne bi dugg ci yàpp yaramam vraiment amatuñ ci woon benn solution lu dul Cisaye rek Cisaye rek. ñu bëri woo ma laaj ma ndax tànk bi dañ ko mujjee dagg complètement ma ne leen loolu amul mais pour nit ñi gëm ko il faut Ousmane waat ñu gis ko. waaw il faut que waat ñu gis ko tànk bi dagguñu ko Ousmane mi ngi doxal boppam Ousmane mi ngi sang boppam ndax feebar bi yàgg na ci moom yàgg yàggaay boo xamante ni nii euh, xëj na pour mu wér à cent pour cent mën naa bañ a yomb mais wér na ba mën a nekk nit ñi jële nañ fi jéng bi tamit sampal ko fi nekk grâce a ami internet bu Dakar Buzz rawatina Dakar Buzz social ak ami internet association taxaw ñu wéré ñoom ñi nga xamante ne ñoo ci jàpp tey ji Ousmane ci jéng lañ ko jëlee woon waaye tey ci néeg lañ koy dugal Fadel loolu sant yàlla la. sant yàlla di bisu mbégte rek muy collaboration boo xam ne diggante Dakar Buzz Social ak association Ande Taxawu ñu fii laa taxawoon mag Pape Niang wax na dëgg jooy yu métti vidéo bi mu duggee sax nit ñeme ko mais xooluma ko ngir kaa bu mel noonu mosuma ko gis ci àdduna sant yàlla nag ba nga xam ne nag faj nañ ko ba mu wér ba sànce ba tànk bi wér ñu mën ko indiwaat fii ak fi ñu ko fekkoon it ci néeg bu doy waar tey nag ñu war ko dugal ci beneen néeg boo xam ne wan ko ne yow société bi nga bokk waaye Pape euh, Pape Pape Pape ku yebu ñaanal ndeysaan waaye ku ku yebu ñaanal Dakar ku yebu ñaanal Dakar Buzz Fadel parce que yéen la fi ñu ko fekkoon fi ñu ko fekkoon Fadel doy na waar juróom ñaari atu yàlla nit ñu takk ab jéng ko ab tànkam mu jàkkaarloog àll bi digganteem ak àll bi dara dox fi jaan mënoon a dox ba matt ko ak li ko tiim lu nekk mënoon ko cee fekk tey mbokk yi tamit bañu ñu ñu jéng malade yi nañ leen tëj ci néeg yi mais nañ leen toppatoo nan leen jox li ñu war su warloog ñoom parce que tey yàlla li tax mu teg ko feebaru xel yow xamuloo ko boo demee sax feebaru xelam boobu yow mooy dundal sa wér kon yow mi wér yaa war a mën a xam ne comme moom moo lay dundal yow nga suuxat ko di ko jox muy lekk te yàlla tax waaye amuñu fayu benn yoon benn yoon nday Ndeye Fatou Diop Greensboro North Carolina vraiment jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax waaw di gërëm AATGW social ñoom ñi ma may oto te ni ngeen ma mayee oto laa bëgg ngeen may Fadel Niang oto sonn na ci taxi yi waa Dakar Buzz sono na ci taxi yi waa groupe bi ñi nga xam ñooy jàppale Fadel ah sonn na ci de léeg-léeg ma dégg ko muy tudd ay ñoom Cheikh Amar ak Ahmed ay ñoom Khadim Amar ak ah. ah social bi ah waaye defal leen sama waa ji social yéen tamit mais tey moom mbégteel la bisu mbégteel la bisu bànneex la fa Seydou bisu bànneex la léegi dañuy xaar Ousmane wàcc ñu dugg ci biir xool duñ ko jëlee woon ak léegi luy différence bi waaye kenn du taxaw ñu wéradi noo tudd. Mariama. Mariama yow Ousmane lu ngeen bokk. Ndey ak Baay. tey jii ni ñu jëlee woon Ousmane ni ko gisee woon avant ak après tey en tant que ñaar ñu bokk dret euh, tey lan nga yëg. kontaan rek damaa kontaan mënumaa wax sax. lan ngay ñaanal ñi ñi ci def seen alal bonne volonté tey ba sa frère bi tey mën a delluwaat ci ni ko gisee ndax ko ne xam ne neen ko jëlee woon ak lii am na différence loo leen di ñaanal. wallaay leen di ñaanal jàmm rek li leen di ñaanal. yàlla rek moo ko xam. billaay bi ma ko gisee jour bi ngeen fi njëkkee ñëw gis naa ko maa ngi leen di ñaanal boobu ba léegi saa yu ma jullee dama leen di ñaanal yal na leen yàlla yokk ba ngeen yëg ko yal na ngeen wér te yàlla bu leen dara jaaxal li ngeen di def seen bopp ngeen ko defal yàlla gis na ko billaay kontaan nañu ñun ñëpp kontaan nañu mbokki Ousmane yëpp kontaan nañu. jërëjëf saafonte leen xam naa namal Samba. sant rek. ñoo ngi sant yàlla bu baax Ousmane demal nga nuyu sa mbokk yi kaay nuyu sa mbokk yee. waaw. alhamdulilah Ousmane. man maa ngi limbay. barke Maodo. alhamdulilah. du cella Ousmane. yàlla bés du cella man mbaɗɗa andu samreno alhamdulillah mbaɗɗa tam kadi eh, salmin ɓe salminmaɓe ɓe salminmaɓe ɓe ousmane e totti tottiɓe jum léegi waaw dugg ci néegam nag. waaw na. waaw yaa ñu fi jiitu woon. am noo defar moom ñoom. dinañ dugg nga xool li nga ko defal sant nag bu baax a tey gërëm maçon bi nga xam ne moo tabax kër tabax néeg bi donte ne ca tàmbali ba moom amoon nañ ay giita ŋaas euh, ndax dafa doon parentère bi yóbbu ko côté bi jël bunt bi yóbbu ko fële waaye biñ ñëwee dëgg yàlla laaj ko lu waral loolu mu ni moom professionnalité am la waaye ñu xam ne loolu dëppoowul ak professionnel loolu yëf boppam mais après wax dëgg yàlla nag biñ ci waxtaanee ak moom delloo wan na ko ba lépp dellu ci normal moom moo daaj mbaar mi moom moo defar lépp moom paa daal ñu ngi koy sant di ko gërëm jërëjëf Pape comme nag yaa fi jiitu woon dañuy bàyyi nga ubbi buntu néeg bi Ousmane dugg tey fi ñu ko jëlee woon ak fi ñu koy niwaat ñu xam ni lépp lu jaamu yàlla jox joxoon nga ko ci askan bi kon nan dem ko waaw fii day barab boo xam ni wax dëgg yàlla bu ma fi duggee rek ah, sama àdduna jaxasoo ndax Pape boo xoolee ko rek ñun ñëpp fii loon jonkoroon di jooy muy maman boo xam ne man bi vidéo bi duggee ni ñi may woo di ma dugg na mais sama ngor sax mooy moo seet vidéo bi képp ku àndoon ci groupe bi rek tuur nga xeebal muy moment yoo xam ne nit mënatu ko fàtte. Adama Seen mi da cee jooyoo jooyoo jooyoo jooyoo jooy ba daanaka bokk na ci vidéo yi ma gën a marqué ci social Adama tey lan nga yëg tey Ousmane ma woon ak mi salaamaaleykum wa rahmatulah euh, contentement laa yëg vraiment tey moom ak euh, keroog vraiment deux jour la yoo xamante ne c'est diamétralement opposé ku gisoon fii mbaar mi fi ne woon nga def si wat fi tey ji gis fi lii defuñu loolu sant yàlla sant la yow sant pap sant waa ñëpp ñi nga xamante ne dugal nañu ci seen dërëm te di wax ne nañu continuer di jàppale malade mentaux yi wala les nécessiteux parce que muy yow muy Pape ay lantinoo ngeen doo leen téye diw ku gis li xam ne ku ci digaloon euh, sa dërëm perteloo ko mii nii tegee jërëjëf Zora Kaay parce que fekkee bu cul tey da ngaa nekk koo xam ne tam sa kàddu doon ko ci soxla Zora yu mel ni nit ñi lan lañ ci war a jàngee doomu aadama waaw Baye Fadel liñ ci war a jàngee rek mooy ku nekk xam na ni bari na ñoo xam ne li dal Ousmane moo leen dal te ñàkk ñu leen taxaw comme ni ngeen leen taxawoo rek moo leen tax ñu continuer ci loolu mais bu fekkonte ne bépp nit bu nekk ci barab nekk fa comme ne fa Ousmane nekkee woon ñeneen ñu mel ni yéen def ni ngeen def situation yi day régler parce que Ousmane mii ku xool keroog bi ko fi gars jël si man ci vidéo yi laa ko seetaan parce que jour boobu ñëw ma mais wallaahi azim vidéo bi dagg chaîne bi rek ba léegi ni mënu ma ko xool maa ngi koy sama yaay kon Ousmane bi ñu fi jëlee woon ak Ousmane bi fi ngeen ko jëlee woon ak fi ngeen ko indi tey ñi ngeen fi bàyyi woon ak ñi ngeen fi fekkaat tey xam nañ ne Ousmane mi ngeen fi jëlee woon ak Ousmane mi ngeen fi indi tey bokkul te boobu ba léegi matin midi soir yéen a ngi ci moom ci lekk ci naan ci yëre ci lépp tàyyiwu leen xàddiwu leen parce que nit ñi ñooy jàppe nit ñi malade mental mais yéen ci seen jëm li ngeen jàppe mooy doomu aadama yëpp ñoo yem fa yàlla parce que Ousmane mi li ngeen mën a dund ak moom su fekkonte ne démb ak bërki démb ay mbokkam wala ñeneen ko gën a jege dundee woon nañ ko ak moom amaana li ko dal du dal parce que ci diir bu gàtt ngeen ko yor dindi ci moom loo xam ne ay ati at la nekkoon ci moom kon pexe bi ngeen ci jéem ngir ndimbalu yàlla suñu borom yaaram kenn amul seen fay kenn amul seen fay xanaa di soññu jaamu yàlla yi lu baax moo jara wane te jëf ji ngeen jëf nii yéen a ngi won yoon wi ñeneen ñoo xam ne am na ñeneen ñu meloon ni Ousmane ñu def loon ci barab yu mel ni yi defoon Ousmane tey yëgu leen ko waaye ñëw ñu génn nañ leen fa ndax rus nañ yéen ngeen dox ba fekk leen fa ñooñu parce gis nañ ni donte ni nit ki boo ko fekkee ci barab boobu boo ko fa jëlee a indiwaat ci ko dinañ ñu def ko bala ngeen koo kon ñàkkoon koo xam la kon yéen a fi nekk yéen fi yàlla teg ngeen ni wane yoon wi yàlla na yoon wi gën a leer di sant ñëpp di gërëm ñëpp Baye Fadel amiin amiin waaw waaw kon kon ngeen ñaanal Ousmane ci néegam bi dal mu dalal jàmm waaw pap ayatal kursi ak alam nasa ak lii laa fi ak falaak an naas ak julli julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan jàmm yal na yàlla julli si jàmm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 inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa salamun ala mursalin amin ya rabbal alamin acca na ndox mi jiitu Thank you. naat suudu na dugg waaw sërëm bi na dugg ki mbokk ndey baay a bokkal ndey ak baay ko dugal ko ci biir néegam mu Ousmane fi ñu ko jëlee daal li ma gën a jaaxal oh ndeysaan ndeysaan wane ni fii néegam la waaw fii néegam la dëgg yàlla Ousmane dañu bëgg rek mooy Ousmane na yéeg ci kaw lalam toog pour moom sax moomu ko lépp li fi nekk mooy boroom bëgg nañ nag mu am tele te xam naa ni ami internet bu Dakar Buzz dinañ ci jàpp ngir mu mën a am télé am ventilateur dëgg yàlla ndeysaan dafa sant mi ngi rek kontaan na Ousmane kontaan na <laughs> ba pare dafa ba pare dafa sant ndeysaan Ousmane kontaan na jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz rawatina Dakar Buzz social ak yu association ànd taxaw ñu wéradi di association boo xam ne yaakaar naa ne li ñuy liggéey nekk sax lu ñuy wax ndax lu nit ñi teg seen bët la ñuy ñaan association bi yàlla na ko yàlla sàmm yàlla musal leen ci ndong ndong ndax tey liggéeyu état la ñuy liggéey ci biir dëkk bi kon di ñaanal suma doom baay Pape Niang yàlla gën koo dëgëral te jàppale ko ba lii mu boot yàlla woyofal ko ndax yombul yombul nit ñi di jaarale xaalis ci yow mais lii ma lewoon lu ko nit ñi jox rek defaat na ko ci jaamu yàlla yi talta lekk talta naan talta noppul amul vie de famille di daw rek ci bëgg-bëgg doomu aadama yi jël nag métier bi gën a métti mooy féetewoo malade mental yi ki ñëpp daw la féetewoo kon yàlla na ko yàlla woyofal yan bi te jàppale ko Ousmane nag gis nga tey néeg bon toogoon ak néeg bi tey ku ne xam ne ne na différence sant yàlla rek tey ñaan yàlla gën ko dolli wér te bëgg daal bu buñ fi jógee daal mu wutal ko xale bu baax boo xam ne da koy wutal muy seet ndax mu gën a mën a ndax mu gën a ñëwaat ci ci dëkk bi Pape tey wax naa ko sànq fi ñu jëlee Ousmane ak fi ko indi tey comme yow liggéey bi yëpp sa loxo la nekkoon ma bàyyi la nga leeral jërëjëf Dom jërëjëf ami internet bu Dakar Buzz TV ak euh, an waa association taxaw ñu wéré di ñëpp bàyyiwuma kenn tey lii seen ndam la ndax bis biñ dugalee vidéo bi ñëpp a jooy adduna ñëpp a jooy ndax lu mel ni yaakaaroon nañ ni mësul am daan nañ ko seetaan ci yenn réewu Afrique yi bañ jàppoon ni egsiwul Sénégal nekkate lu gën a pire loolu mi ngi Sénégal waaye ak ak Pape Niang ak AATGW social an taxawu ñu wére di dinañ leen génneel feebar yi nekk ci biir kër yi te nit ñi rus koo wone dinañ leen koon Fadel dañuy dellu siwaat tuuti ci ginnaaw ci Ousmane Ousmane Tall mii bis biñ ko waree jël si du moom lañ waroon a jël si kan lañ waroon a jëli mooy ki nga xamante ni mooy joojo joojo Bada bi nekk cees te loxo bi daggoon moom la ñu waroon a jëli waaye sunu borom ni Ousmane Tall la ñuy jël Ousmane bi ñu ñëwee ni ñu ko fekkee dañuy wax ni loolu du melok nekkunu sax doomu aadama parce que Ousmane benn chaîne bi chaîne bi nga xam ne moo dugg ci biir yax bi tànk bi mu nekkoon boobu takk nañ ko ci ba xam ni fi mu toll nii moom chaîne bi dugg na ci biir yàpp yaram bi léegi dañoo dañoo xam ni mënatuñ koo dindi ñaari kànnaar yi ci nekk xamatuñ caabi yi fu mu nekk xam naa looloo tax mënatuñ ko sax tijji peut-être ñu jàpp ni amuñu solution ñu jëlaat chaîne bi gàll ko ci beneen tànk bi. biñ ko gàllee ci beneen tànk bi ñun keroog bañ ñëwee yaakaar na liy dund ci nit ku dee moom lañ fekk ci nit kuy dund muy tànk bi saxe Ousmane mënul woon a defal boppam dara toogaay bu yàgg moo taxoon Ousmane lépp lu muy def surplace la koy defee nekkinam ak ñun ak kam metti woon parce que Ousmane bu bëggee tuur ndox sax fi mu toog lay toog tuur ndox ñu jël ko yóbbu ko hôpital psychiatrique bu Thiaroye àndoon ak kii nga xamante ni moom moo di Seydou di nijaayam moom tamit ñu ngi koy gërëm ndax deret dafa foor ak lu mënti xew deret dafa foor xëy na tamit njaboot moo ko poussé woon ba sax mu bëggoon a jël Ousmane indi ko te fekk na fajam eggut foofu noonu biñ demee hôpital ñu xamal nañu si signé nañ bon de sorte bi foog mu génn te boobu noonu Ousmane yaakaar naa 15 jours kese la def ci hôpital bi bi mu defee 15 jours ñu ni dañ koy jël nag moom Ousmane yóbbu ko jox ko sunu ñaari jàmbaar yi muy Baye Paate ak Baye Wuri kenn ku nekk ngeeg soxna mais dañoo jël seeni soxna yabal leen seen kër yaay ñoom ci seen bopp ñu fanaanoo usmaan kër giñ dëkk ñoom dañ ko luwe mais dem nañ ba waa kër gi attanatuñ leen ne leen malade bi na génn wala yéen ngeen génn ñu naroon cee teg seen bakkan sunuy génn ñoom dañuy ànd ak malaat bi génn mais malaat bi rek du génn ñu jaayanteeg loolu ñoo xamante ni kii nga ki koy defal bokkuñu ak moom direct ñooñu dañ leen a war a saluer ñooñu dañu leen a dama wax ni ñooñu ñoo yëkkati drapeau Sénégal parce que dañoo def lu rëy muy bàyyi paate ak bàyyi wuri ñooñu day maa ngi ñaan ci yàlla ñoom lay wax sama ñaari malaaka yi maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na ma leen yàlla taxawul bàyyi nañ seen lépp sacrifié nañ seen dund gépp ànd ak man ci liggéey bi yàlla bi te yàlla tax mosu ñoo deltu ginnaaw su ma leen dénkee malade bu mënta nekk sax danañ ko nekkal ñoom bi ñu demee ba dara desul lu dul génn kër gi ñu ni solution am na man leen mooy lan mu ni mooy ñu jël ko yóbbu ko ci siège association taxaw ñu wéradi ci lañu jël Ousmane yóbbu ko ci siège bi mais Ousmane dañ koy solo lu tolloog juróom-ñaari yére ak juróom-ñaari tubéy par ko li muy dem Euh, li muy dem ginnaaw kër dafay bëri te lépp lu muy def sur la koy defee bi ñu demee ba xam ne nag moom coono dugg na engagé wu nañ te duñ ci deltu ginnaaw suñu doon dee duñ ci deltu ginnaaw ñu ni kon li ñuy def mooy Ousmane mii dañ koy jël yóbbu ko Mbuur di gërëm bu baax sëriñ Alaaji Ba ndax bi ñu jaaxlee amuñu fuñ yóbbu Ousmane te mënuñu koo dellu si ci dëkk bi ndax boobu tànk baa ngi saxe même Seydou mii xamoon na ni Ousmane bi mu nekkee hôpital lépp lu muy def sur la koy defee ñu jël ko yóbbu ko foofu sëriñ bi tamit jàppale ñu ci bu baax donte ni diggante bi fa Ousmane nekk yëpp fay naa fa lu trois cent mille ci nekk bi mu fa nekk bokkul ak yóbbu naa fa dund ravitaillement ak lépp loo xam ne war na fa yamu ca dem nañ ba tey gii nii usmaan mooy sang boppam billahi usmaan bu safee bu bëggee dem wanag mooy jóg jël satala gi dem wanag Ousmane bu bëggee lekk moom mooy jóg dem lekkal boppam te suñ ko mësaan a jox palaat ceeb yëpp ci suuf lay nekk mu nekk lu yéeme cër boobu nag yàlla daf ko séddale ci ñaari waar muy dakaar Buzz ak Ànd Taxawu ñu wéradi yemuñu ci loolu ñu ni Ousmane bërëb biñ ko jéngoon suñu ko fajee delloosiwaat ko ci bërëb boobu noonu loolu dañuy day nduroog jàngo jàngo euh, saafara bu jur jàngoro ma ni kon solution bi mooy lan le temps que ñuy faj Ousmane na na na fi mbaar mi jóge ñu sampal ko fi néeg néeg bi presque li ma ci frais ëpp na cinq cent mille billaahi wallaahi wa minallaahi matériel yeeg lépp waaye loolu nag duñ ko sante kenn kenn kenn kenn kenn ku dul suñu représentant yi nekk fii ci Louga muy Mamadou Saw mooy bàyyi yitteem bàyyi jabaram bàyyi këram bàyyi léppam di ñëw di taxawu liggéey bi di ko toppatoo di ko saytu ñun ñu nekk dakaar moom mu nekk fii moo tax liggéey bi oyof ci ñun kon képp ku nekk Louga ñu ngi lay sant di la gërëm di leen dénk nag yéen mbokk gi néeg bi néegu Ousmane Tall la defaluñ ko Seydou defaluñ ko ay doomu Seydou defaluñ ko kenn ci dëkk bi yéen magi dëkk bi yéenay seedees dëkk bi néeg bii de Ousmane mii amoon feebaru xel ñu jéng ko juróom-ñaari atu yàlla moom mooy boroom soxlawuñu ku ko wéttali soxlawuñu ku ko jàppale li ñu soxla rek mooy ku ko dimbali ay lekkam ay naanam na lépp di mat te ngeen di futteeku bu bañee sangu ngeen futteeku sang ko delloosi ko te ngeen koy bàyyi tamit ci li nga xamante ni moom la bëgg lan la bëgg bëgg na génn di taxawaalu ci biir kër gi bu leen ko ko tëjal bëgg na génn ci koñ bi bu leen ko ko tëjal bu bëggee dem ci àll bi sax bu leen ko ko tëjal xam ni guddi guddi Ousmane xamul fu dul fii dund na fi lu metti nag boo gisee bi mu ñëwee ba léegi nanguwu fee xool ku yàlla bind ba tey am na lu des ci xolam metti na lool de man day wax dëgg yàlla li muy ànd ak feebaru xel feebaru xel kër sëriñ bale mu nekkoon dafa nekk àjjana dafa doon firi di waxtaan di bége soo ko ne usmaan jugal def lii mu jóg def ko mais gis naan depuis bi mu tegee tànkam ci buntu kër géeg léegi ku mu xool rek dalay xeelu kon nag xeelu boobu yéen yéen a ko mën a dindi ci moom man maa ngi dem te gëm naa ni bu may ñëwaat Ousmane dina am tele Ousmane dina am courant Ousmane dina am lépp luy waree fu góor ci biir néegam te it du ñu arrêté traitement yi rendez-vous bu jotee dinañ ñëw ba Louga jël si ko yóbbu ko dakaar faj ko indiwaat ko te xam naa ni Seydou du ñu ci seetaan ndax sonn na ci lool moom tamit kon Fadel maa ngi gërëm association taxawu ñu wér di bu wér di gërëm bu wér di gërëm ñi nga xamante ni ñoo may jox seeni ravitaillement ma dem di ko yóbbu di ko jox jaami yàlla yi ca jamono bañ ko soxlaa maa ngi gërëm képp kuy jàppale Fadel nii oto rek laa bëgg mu am ko fu mu toll nii sonn na ci taxi fu nekk Fadel dem na fa sonn na ci taxi sonn na waaw wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm amuñu beneen mot buñ ciy dolli bu dul jërëjëf. jërëjëf Pape Nia kàddu yi rafet na macha allah yàlla yàlla fay la sa xol tey barkeel sa liggéey eh, te gën laa dooleel yow ak ñi nga bokkal ñëpp nag bari nañu. c'est-à-dire turu da cee gën a fees rek mais li mu wax sànq rek am na ñoo xam ne ay taxawaayu malaaka lan taxaw ci ginnaawam su Pape tegee benn ñu teg fukk muy góor muy jigéen kon loolu ñi ngi ñaan yàlla gën leen a jàppale te dooleel leen ndax doole jën wax Pape la mais am na ñu ko dooleel kon ñi ngi gërëm ñëpp tey jii ni ma la jël woon tey jii ak tey tey dafa mel ne na différence de. waaw am na différence. luy différence. asalaamaaleykum yéen. comme ni ngeen di tuddee euh, service bi. association ànd taxaw ñu wéradi. association ànd taxaw wéradi maladie mentale. ginnaaw bi ñu sant yàlla. julli ci Muhammad. ñu ngi leen di sant. di leen gërëm. di leen xamal ni ku def lu baax yow yaa ñaanal sa bopp. ku def lu baax yow yaa ñaanal sa bopp. Ousmane Tall eh, kontaan nañ ci tey. ginnaaw bi ko yàlla jaarale ci seen loxo waaye sunu borom mi seede xam na Ousmane yàgg na fii baayam moo ko njëkkoon a yeew ngir menaces yi mu doon def deju baayam maa ko yor fii ba mu gaañu fii ci sama loxo te bari na ay mbokk trop moom mi am na juróomi nijaay ñu ngi fii soriwul am na mag bu góor magu ñoom kii ñoo bokk yaay mais bokkuñu ndey gaañu gaañu tànk bi ëppul ñeenti fan dèjà yàgg na fii yàgg goo xam ne suñ ko sàggane woon rek Ousmane xëy na tànk bi dam dagg na wala def na neneen man tam njaboot la ma toog muy def yoo xam ne gisoon naa ko ma indi ko ci samay nawle moo taxoon ma continuer yeew boobu mais du soxor du sàggante du dara fii mu toog nii biir néeg bi am na fii ay bool yoo xamante ni kenn mënu koo wëññi parce que bu mu mosaana dem yëndu àll bool buñ ko yekkal boobu nekkaat na boolam entière bu ma fanaanee àll noonu yàlla miy sedd seede nañ def ngeen lu rafet ah man jarul kenn di ma gërëm parce que sama deret la ay nijaayam kenn moom ma ci jotawoo ñu ngi fii kii bu mu nekkoon ay borom milliards duma ko jege. xam nga loolu kon ñu ngi leen di sant Pape ba ma nekkee moom ak dak hôpital nga indi ma foofu ma engage ko dem naa ba mënatuma puisque Ousmane maa koy fóotal guddi maa koy fóotal bëccëg am na yëre yoo xam ne yi nga ma jëndaloon yu bari yu am na ci yu bari yoo xam ne dama koy sànni noonu rek dem naa ba dem gis nga bi ma jógee dakaar ba léegi su ma génnee sama néeg bi jàkka laa dem wallahi laa jëm dem naa bi bërki dem bu ci benn waay cent mille la ma laaj ci problème bi ma la doon jàmbatal foofu am na ordonnance boo ma jëndal foofu lii la rek bi nga ma waxee aussi nee naa la xëy na juum na jotuma laa woo mais teraanga bi ngeen def delloo leen teraanga moo ma war mais du kii doomu adam nag mooy juum. yow dañ lay sant léegi nag mag ñi nga gis mbooleem koo fi gis maa leen woo nañu ñëw ñaanal leen ñu sedd leen kon nga xam ne ànd nañ ci ni ngeen doxale ñu ciy sant yàlla. lan ngay ñaanal ñu ciy def seen dërëm. ba Pape Niang mën koo jot ba mën koo faj. ñi ma leen di ñaanal comme d'abord li ma wax ku def lu baax yaa ñaanal su bopp yal na leen yàlla fay ñun ñooy aadawoo ku parce que yàlla ku am fulla la yàlla ku am fulla la moo ne soo defee lu baax man danaa la fay lu baax kon ñun ñoo ciy tofal yàlla yàlla fay ko rek mais dana ko fay incha allahu rabbi yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla yokkal seen wërsëg. yàlla defaral leen ko bu baax a baax wuur yi ñoom ak paati yéen ñëpp ñu ngi sant yàlla di leen sant parce que comme ni ko Pape waxee noonu la amee keroog bi ma jëlee bi ma jëlee euh, hôpital suur boobu mun a ma defar Ousmane na mu takkee woon ak yéreem mag yëpp wax naa ko ci jàkka ji sax nee naa leen ñii du ñu seexlu parce que yàlla mooy tax ñuy jóg keroog noonu la ñu takkee noon ci mat la wuuri boobu noonu la ñu yëkkatee Ousmane teg ko ci kaw wax naa ko fii man teraanga bu waaye wax def rek danaa ko seddate yàlla tax kon yal na leen yàlla gërëm yàlla yokk leen yàlla aar leen barki Muhammadu Rasulullah jërëjëf kuy liggéeyal yàlla doo seexlu kon wuri kaay toog mais le temps que wuri di ñëw kii nga xam ne moom Ousmane bokk ndey ak baay te eh, xam na ni mbokk ndey koy jur ndax kat Ousmane nag ku mu fi mën a bokkal kii la a bokkal ndax tey kii jàppoo ko sax sëram ndeyam laa ko jàppee tey lu tax tey bi nga tàbbee ci néeg bi ñuy waxtaan nga tur xewal lan la. waaw dama kontaan rek may sant yàlla bu baax kontaan ak sama xol moo sori xol bu soree nag bu tooyee faw nga tuur rangoñ te Seydou maa ngi koy sant di ko gërëm li ko daal si Ousmane man de teguma ko si lenn loo xamante ne lu metti moo tax mu def ko noonu Ousmane lii yàgg na si moom sam pap moo ko njëkkee. depuis bi ñu nekkee Taïba la ko njëkkee woon ci Ousmane Tall man mi man mi léggéey naa ma wax ko Seydou mi ma ne ko li ma xaalis bi ma yor bariwul waaye maa ngi la koy jox pour nga ànd ak sam pap ngir yóbbu Ousmane dalal xel fan sa laa ko wax sam pap yóbbu ko Thiès dalal xel Seydou mi seede na ko man ndax dama ne sam pap li dal Ousmane bu doon man la dal xëy na dina ma taxawu léegi comme que man yor naa lu bëriwul nañ ko ci def ba xam ne yàlla nan lay def ñu def ko si ñu bindal ko ay ordonnance ordonnance yi ñu di koy dow ñu di koy daw ba mënatuñu yàlla def Ousmane bu ko sam pap bàyyi si bitti mu di leen di indil problème moo taxoon sam mu ni gis nga Ousmane waruma ko yeew ay nijaayam ñoo ko war a yeew waaye man mii Bamba man maa koy yeew ndax maa jur sama doom ji dina dem. Bamba Tall mm-hmm. sama doom ji duma ko bàyyi muy sànku ji te da doon dox di dem te sama papa bëggul mu dem bu demee du ko gisaat moo taxoon mu jëngu ko léegi nag yàlla def ni sama yaay gaañu sama papa yore ko yore ko yore ko ba ni mu gaañoo léegi nag sama papa moo yore Ousmane ba sama papa feebar ñu woo ma téléphone fi may sëy ma ñëw ànd ak Seydou hôpital. man ak Seydou ñooy fanaan ak sam pap moo koy yore moo koy sàng moo koy defal lépp sam suur bi muy génn tase tabaski Seydou génnee ko yóbbu ko dëkk ba bi mu ko fa yóbbee man di manaa ah man di damaa bàyyi ay xale maa ngi dem sama kër tabaski ji bu paasee dinaa ñëwaat Seydou mu ne ma waa ñu tàggoo maa ngi moom ak sam ma dem Louga may jëndale samay xale ay yére Seydou woo ma téléphone mu ne ma Mariam ma nekk naa mu ne ma man di sama sama nijaay néegu ma koo bàyyi fii ak jigéen ñi ndax dem na ba nga xamante ne jigéen ñi ñeme ko léegi maa ngi koy yóbbu sama kër ma nekk ko Seydou man di li nga def kontaan naa si ndax sama amul kenn koo xamante ni war na kaa mën a yor ku dul yow dama see kontaan Seydou jël sama indi ko fii sama pap fii la gaañoo Seydou woo ma téléphone ko Seydou mi billaahi lii du mba du du du mbonam moo ko moo moo teg usmaan lii xam nga lan la lii yàlla moo ko tudd man Seydou wax naa ko ko ma ne ko lii bu ci am lenn du lay metti ndax xam naa yàlla du mu dogal rek loolay am Ousmane moo njëkk feebar sama yaay gaañu na bàyyi Ousmane feebar ku dëgg jooy yuuxu yi dañ naan kan moo gaañ ñu ne cukkeel sow moo gaañ ñu ne du cukkeel usmaan doomam bi moo gaañ bu ñëwee fekk mu toog ci biir néeg bi sama yaay gaañu man maa nga fa sam papa nga fa yaa ngi dégg sam bi mu gaañu Seydou yëkkati Ousmane yu indi fii yore ko fi xam nga borom kër monta toog amul kenn ku la dimbal te moo moo ngi ni moom dong la yaayam am ci doom ju góor amul kenn ku ko aw waaw ngay dem di wuti di indi yaa ngi dégg léegi nag lii dal na ko waaye du càggatem du mbonam xëy ni yàlla moo ne woon Ousmane tànk bi na mel nii ba ngeen si jot mm-hmm. lii ab yoon la rek yàlla moo ko fa jaarale sant nañu yàlla nag gërëm nañu leen ndax yéen ñii kenn mën leen a fay yàlla rek moo leen mën a fay yàlla moom moo leen mën a fay yàlla na leen yàlla fay billaay kontaan naa démb bi may julli wallaahi yéen ñi julli naa leen ay rakk di leen ñaanal si yàlla yal na leen yàlla defal li ngeen bëgg si àdduna li ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal ci àdduna yal na leen fi yàlla bàyyi te fu ngeen mën a jëm ci àdduna yal na leen yàlla suturaa yéen ak mboolem jullit te Seydou billaahi man du ma ko wax leen Seydou sama doom bàjjan la hmm. sama doom bàjjan la man maa koy jox yére waaye Seydou hmm. Seydou Seydou nit ku baax la Seydou nit ku baax la hmm. sant na waa dëkk bi sant naa ñépp ñépp laa kenn wu ko Ousmane yàlla rek moo ko ko teg nañ ko jàppee yàlla bis bu ko su bëggee dindi dina ko teggi teg fee nañ sant yàlla sant naa la Seydou yéen ñëpp sant naa ne yal leen yàlla fay jërëjëf. jërëjëf mbokk yi ñu ngi lépp sant yàlla rek di sant saydu ndax tam bi ko Ousmane jaaxale tam Pape Niang la gisanteel ba lii mën a kon Seydou mu ne su ko bañ sant te xam ni. yéeneem ci Ousmane Tall mooy mu wér yàlla am na lu mu ci yàlla def nag ñu ngi ñaan yàlla yokk ko di ñaanal yàlla Seydou gën yàlla gën koo dëgëral yan bii mu yanu mu woyof ndax bu fekkee da ngay borom kër di benn loxo war a daw ngir njaboot war a daw ngir Ousmane day metti mais sant yàlla rek ba Ousmane lu mu am nag ni ko sante yàlla gërëme ko ay wéjuram ndax Ousmane liggéeyu ndeyam wallu na ko ci feebaram bi xaw ma ko yaayam de waaye bir na mën a yaayam nit ku baax la ndax yaayam. yaayam sang bu baax la. sang bu baax la bu ma musaana jóg dem jàkk wëri kon ni ma la ko waxee rek yow yaa ngi ci association bi bokk engagé woon yor Ousmane fee dund ak moom ay jafe-jafe ay coono nag tey ñun jëlewoon Ousmane tey ak ñun ko indee yow en tant que membre lan nga ci yëg. waaw tawfeex tawféex di wax alhamdulilahi rabil alamin di wax ni tey daal xool moo fees wax dëgg yàlla xool fees na ndax lii nga xamante ne nii rakkam bu jigéen bi témoin na ko ko ak ndijaayam bii di Seydou kon dañuy doon kon dañuy xam ne nattu yàlla la rek nit ki moom munoo dund ba dee te doo jaar fi la yàlla jaarale munul nekk nit ku nekk di nga jaar ci destin bi Ousmane mi nag dañ ciy am tawféex di ci sant yàlla bu baax ndax biñ ko fi njëkk a fekk metti woon na torop niñ ko fi jëlee niñ ko yóbboo Dakar niñ ko doon toppatooyee metti na torop ba bës bi mu jógee hôpital ndi jaayam bi war a ñëw fii man maa ko jël charge man maa doon fanaan moom sama néeg maa ko doon sang maa ko doon fóotal maa koy jox mu lekk neexul nag nga nekk ak nit ki nga xamante ne nii àndut ak xelam métti na torop kuy nekk ak moom di nga xam ne métti na ndax lépp yàq ko koy defal bu safee saw du la ne damaa saf saw bu bëggee dem duus du la ko wax fi mu toog lay toog def li muy def waaw kon neexul daal ñu ngi leen di ñaaxaat rek di tàllalaat loxo jaamu yàlla yi nga xamante ne nii ñoo fi nekk si jamono bu nekk di def lu baax ñuy gestu jaamu yàlla yi parce que ñii rek ñoo jar dimbali waaw jaamu yàlla gënul kawe nga jaamu yàlla si jaamam bi ndax yàlla li mu bind nit a ci gën a màgg nit la ci gën a bëgg kon nit ak nu mu mën a mer rek jàppee ko ni sa bopp bu boobaa di nga ko yërëm boo ko bëggee dimbali war nga war koo dimbali mbaa nga tane ko dinga ko dimbali te yàlla rek tax di sant di gërëm nag association ànd taxaw ñu wéradi seen taxawaay rafet na cas urgent seen taxawaay rafet na wax dëgg yàlla jamono bu nekk ñu ngi ci terrain bi heure bu ñu woo ñu wuyu amul guddi amul bëccëg dañoo jeexal suñuy dund ci jaamu yàlla mm-hmm. jaay suñuy guddi jaay suñuy bëccëg tayle suñuy lal ak suñuy lépp di ko jaamoo yàlla ndax liggéeyu tey la waaye fay bi ëllëg yombal xiyaam la ndeem tey sunu dund day jeex waaye nag ëllëg lu mat a sóor la ndax dund gi du jeex kon lépp lu ñuy def rek nañ ko def te yàlla rek tax asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi kon Pape nga ñëw rek am kàddu yu ñu ndax xam naa ni bu ñu toppee wax ji tey dana doy waar te liñ bëgg wax lépp xool yi sax matewu ko ndax mbégte rek bisu sant la daal bisu sant rek bisu cant la mënta weesu bisu sant kon laataa loolu Mamadou Sow yow mi nga xam ne tam yaa tekkal association fii ci Louga kaay toog sa kàddu doon koy soxla ndax kër gi kër gi yaa ko doon saytu kaay sànni ñaari baat soo paree sëñ Fallou doo di nuyoo Pape Doro tëj mën ta ñàkk Mamadou Sow ndax Mamadou xam nga lépp mbir mi yëfam la xoolal Ousmane Ousmane dafa sóonu sax <laughs> Mamadou tey yow yaa teewal association an taxaw fii ñu wéradi fii ci Louga liggéey bi yëpp mën naa la sa liggéey la di la félicité si ndam lii nga am ndax bu association bi amee ndam yow yaa ko am ndax lépp sa loxo la tey lii ban message nga ci lancé tey ci ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci Ousmane mi ak ñeneen ñi mel ni Ousmane pour nu leen a bàyyi xel. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen seen wàccuwaay Fadil am mbégte rek ndam li moom ñun ñëpp ko bokk. li ko dale ci suñu président Pape ñaa ba ci yow mi Fadel ba ci man mi ci gën a suufee ñun ñëpp ñoo bokk ndam la ak waa dëkk bi ñu fekk si ak ñi nga xamante ne ñu ngi jël seen alal di ko dugal ci lii ñuy def ndax jaamu yàlla gën koo kawee ndax yaakaar naa loo gën a loo fonk fonk fonk fonk doomu aadama moo ci raw ndax yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a fonk kon nag boo ñëwee fekk li mu gën a fonk nga ko ci jàpp nga ko ci nga koy jàppale yàlla dalay gën a fonk dalay gën teg ci kaw waaye ñu gën a góor góorgóorluwaat ci ñi nga xamante ne si yàlla def leen a bind bind ñu wàcc leen ci kaw suuf yàlla may ñu may ñu xel bu ñuy mën a jëfandikoo suñu xel mais yàlla xañ leen seen xel boo xamante ne si xamuñ lu leen di lor xamuñ lu leen di jëriñ yàlla nag dafa mel ni daf leen a wàccee ci suñu biir di xool ñun ban comportement la ñuy comporté ak ñoom ban tax la ñu taxaw suñu diggante ñoom kon lañ war nañ leen gëstu jàppale leen ci suñu mën-mën ci suñu kattan ci suñu xel ak suñu xalaat lépp loo xamante ne si ñoom mënuñu ko ñun mënal leen ko ndax li ñuy soxla di ko sentir ñoom la ñuy soxla di ko santir dañuy xiif dañuy mar dañuy gëmmentu dañuy tilim dañuy soxla gisee waxtaan ak nit ñi seen soxla mais su fekkente ne bu ñu xiifee du ñu nemmeeku bu ñu euh, maree du ñu nemmeeku bu ñu tilimee du ñu nemmeeku bu ñu soxlaa waxtaan bu ñu jubla si yow sax di waxtaan nga ne dàq leen awe dem leen fële su ko defee loolu da leen yokk problème da leen di yokk feebar Ah, tey nag bisu mbégte la bisu sant yàlla ndax kenn ku ne xam na ne keroog bi ñu fi ñëw di seeti Ousmane mi wute tey bi kon tey bisu mbégte la waaye bisu sant yàlla xanaa ay dénkaan la ñuy def rek di dénkaat suñu bopp mais di ko waa dëkk bi tamit ah, ñu xam ne ah, tane na mais wéragul cent pour cent li ci des nag waa dëkk bi ci gën a war a gën a góorgóorlu gën cee jàpp ko jege dog tamit di diggante moom ak yenn xale yi nga xamante ne si des fois ñu cokkaas ko wala di ko indil yoo xam ne ay jafe-jafe la loolu tamit ñu gën cee bàyyi seen waar gën cee bàyyi xel ndax da nga toll faa ne bu fekkee xale dañ lay tooñ wala di la mën na dem ba yëkkatiwaat loo xam ne dafa nëbbu woon su ko defee ñu gën a xam xale yi nga xam ne moom méngoon na jóg moom di mën a diisoo di waxtaan ak di ko puus ñu koy jege mu koy ñu koy jege ñi nga xamante ne si xëy na dañ koy cokkaas di ko indil ay problème ñu jéem leen dégager loolu segg la ci biir xale yi parce que xale yëpp bokku ñu yem mais am na xale yoo xam ne pour ñu koy jege day day am njëriñ ci moom trop trop mais am na xam ne bu ñu koy jege da koy indil ay yeneen jafe-jafe kon loolu lu moto a bàyyi xel la lu moto a segg la su ko defee ñu ngi am sant sant yàlla bu baax a baax di gërëm waa Dakar Buzz waaye di gërëm ànd taxaw ñu wéret yàlla rek a tax di gërëm mbokk ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi di ko defee ci Louga Touba Kaolack ba Fouta ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf soxna en tant que yaay en tant que yaay lan nga yëg. kontaan rek kontaan nañu torop ndaxte nit ku feebar nga jël sa alal ak sa doole ak sa xel ak sa xalaat def ko ci moom ba yàlla dogal mu tane jàmm ak salaam nga delloosi ko ci biir biiri bokkam te bi nga ko indee indiwoo ko ak loxoy neen da nga ko indi fekk fa nga xamante ni foofa la newoon. nga saytul ko ko ba bu ñëwee man faa dellu ci xol bu sedd dëkk bi nga fekk si seen xol sedd ki ko yoroon xolam sedd ah lii sant yàlla rek la association Ànd Taxawu ñu Wéradi nag ak Dakar Buzz Social dañ leen di ñaanal yàlla rek ñang yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla may leen sutura te lu ngeen songati it ngeen daan ko ndax lii nag du ci Ousmane ngeen ko njëkkee defal ngeen ko keneen ak keneen ak keneen yaa Pauline njaay barki démb rek Louga lañ ko inaugurer kër jox ko caabeem te néeg yi tabax nañ ko fu ne kon dañuy ñaan ci yàlla courant ba ñëw na yaa Pauline Ndiaye ñu ngi doon dagaan courant ci moom waaye courant ba ñëw na wax dëgg yàlla ñuy ñaanal sunu président di ñaanal yow Fadel di ñaanal DG am yàlla na see yàlla yokk seen man yàlla yokk seen wërsëg ci jaamu yàlla yi rek ngeen nekk saa yu ngeen yeewoo ci lu dimbali jaamu yàlla yi rek ci ngeen ne kon ñi ngi ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla bokk defal ndam yàlla teg ci yéen loxo ba lu ngeen puus yàlla taal ko mu tàkk te yàlla teggil leen cat nag yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñi ngi gërëm ñi ne àndal ñëpp di beral ngërëm yaa Adama seen cas urgence di ko sant di sant baay Wuri ak baay Paate di leen ñaanal yàlla fàllu sama doom ak sóora moom dama leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm rek xale yu baax lañu ma jaaxal Fall léeg mu ne juróotoo ko daal ah mu ne bu bëggee def toj-toj daal mbaa a jëlal Baye ni juratuma ko Mamadou Sow tamit ñu ngi koy seet bu baax nag ndax barki démb ci liggéeyal yàlla bi tamit lu metti da ko cee dal ñu daanu ci moto moom ak Baye Yaya tamit coo sonn ci coono boo xam ne lépp dañuy def rek te yàlla tax kon ñu ñaanal leen yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati ñu dellu ci seen njaboot te bañ a tëral kenn yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kontaan nañu ci caméraman yu rafet yi tamit <laughs> jërëjëf mbokk yi Fallou yaay kenn du ko fawee fonkal sa yaay ji jureel kenn mënu ko changé Fallou kay ñaari baat nga door a dem ah ñaari tey bisu mbégte la na ko def sànni baat rek <laughs> tey bisu la sëñ baal jureel ngay changé nag di ko déplacé <laughs> tey xam naa ne ah, tey ñun ñëpp seen xool sedd na ndax ñun lii rek moo ñuy dundal nit ku nekk ci jafe-jafe ñu fexe ko ba mu génn ci donte li ñu bëgg lépp amaguñ ka à sax mais mbégte lay doon ci ñun tey yow en tant que membre ci biir association bi lan nga yëg ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di nuyu tamit ñu nga xam ne moom lañ fekk ci dëkk bi di ziar tamit yow di béggee waa Dakar Buzz social di ziar tamit suñ président Baye Pape ndax tey nu ñu mer rek ci association bi bañ ñuy gis wala ñu ñuy bàyyi xel wala ñu ñuy jox kàddu yàlla ak moom la nit nag euh, noo mën a mel euh, sant yàlla jar na baax na lu war la ab jàmm waaye nag li tax ñu xam la wala li tax ñu lay dégg di la bàyyi xel kooku jar naa sant jar naa ñaanal may waxit euh, ci ki ñu indi fii ndax biñ ko fi jëlee am na nu meloon may dénkaat rek ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal ñu war a dëkkaat ak ñoom am na lu bëri nag loo xante ni ñoom ñoo ko war a defaat ci jëmm ji tey war na bañ a xëy sax bañ a sangu ñu naxtaan ko ba sangu bañ ko bàyyi ci coobaree boppam ndax tamit moom li mu yëg rek lay def. waaye nag yow yaa koy fekk ci ci li mu yëg ba pare def loo ko li nga bëgg mu def ko kon dañ leen di wax rek ñu bàyyiwaat xel bu baax xam ni comme ni ko sama nijaay waxee léegi rek des na te lu bëri ñoo ko war a complété ci moom di gërëmaat ñëpp rek ñaanal nag sama président Baye Pape sama yaa xadeet euh, yenn saa yi ma de ko ne waaye <laughs> moom sama yaay la daf may jël ci suuf di ma peeg <laughs> maa ngi sant ñëpp nag waaw yow nag wax dëgg yàlla nit gënu la wax dëgg yàlla bi ma la xamee léegi franchement nitu kese nga man damay roy ci yow lu bëree bëree bëree bëri ndax tey mënoon nga di wax ni siiw nga wala nit ñi xam nañ la tax nga koy dundee wala nga koy doxee waaye képp ku la fréquente rek dina xam ni nitu kese nga te xam nga ni lu mu metti metti metti lu mu metti metti ci kaw suuf ci suuf la ñuy delluwaat loolu yow xam nga ko te yaa ngi koy doxe kon nag ñu ngi lay ñaanal loo man ren yàlla na nga man lu ko raw te li Baye Pape di wax sànq rek maa ngi koy dagaan bu dee li muy liggéey dëgg la li Baye Pape di liggéey dëgg la damaa bëgg ngeen wutal ko 4x4 bu baax bu muy mën a dugg ci àll bi ndax war na koo am ndax liggéeyal na suñ borom lu tax mu war koo mën a am kon nag maa ngi koy dagaan di ñaan ñëpp ñu bàyyi xel kàddu googu may ñaan te bëgg naa balaa tabaske Fadel mi am 4x4 ci barke Seydina Mohamed. amiin amiin jërëjëf kon Pape Kaye Pape Kaye fu ma amee 4-4 maag Seydou koy bokk Seydou fu ma toogee mooy maag Seydou maag moom ba Amérique <laughs> Pape Amine ñaan gépp yàlla na ko yàlla nangu bi ci dàq nag mooy oto bi moom ndax soon naaj taxi yi son naaj taxi yi junni yu maam juróom-benn téeméeri taxi lay def mais sonn naa nan ma dimbali utal ma oto xam nga euh, Pape tey jii tey ma bàyyi la sa kàddu gu mujj ndax dafa leen am na lim boo sa loxo. waaw euh, euh, Fadel euh, am na lim bu ma yor sama loxo naam bariwul te gëm naa ni waa dakaar Buzz dinañ ma ci fekk si ndax dégg ngeen Seydou comme ni mu ko waxee mu ni moom day yor na këram wax dëgg yàlla te it ku ko jàppale mu jàppale ki nga xamante ne moo di Ousmane te bëgg nañu Ousmane Tall mii dootul lekk ñam bu fanaan dootul lekk ñam bu baaxul dootuñu ko jox bool di ko sànni mu leen koy sànniwaat loolu tamit dama leen ci tegal benn kàddu yu soññ gis nga malade mental bu mu mënti doon intention bi nga ñëwee ci moom rek noonu lay noonu la lay teeroo noonu la lay accueillir soo ñëwee wàcce wàcce sa bopp ci kanamam dina xam ni kii ndekete moom jàppul ni moom a gën su boobaa moom loolu dina ko yëg ci boppam su fekkente ni dangaa ñëw wan ko ni ko mala nga mu won la ni yow doo nit boo ko sànnee bool mu téye bool bi kon nañu wàcce suñu kanam ci seeni kanam te jëmm yàlla tax may woo ñëpp nag ngir ñu ñëw jàppale ma ndax Ousmane mii bëgg naa weer wu yàlla sàkk bëgg naa vidéo bi bu jàllee ma ñëw fii wàcce fi tonu ceeb jàppale Seydou ngir mu mën ko jàppale mm-hmm. il faut ñu jàppale Seydou ngir mu mën a jàppale Ousmane li ma yor nag bëriwul ndax gasoil beeg yooyu moo tax te kaa Ousmane yàgg na la ma ca récolté woon jeexoon na bu yàgg waaye il faut ñu gore génne sax ñun suñu xaalis ngir maanaam jël ko def ko ci li nga xamante ni moom moo dund Ousmane ma yëkkati fukki junni teg ko ci loxo Dakar Buzz social ñu tegal ma ko ci loxo ki nga xamante ni moom moo di Seydou ni ko nag ay ndékki ak añ na jàpp ci dépense bi dinañ ñëwaat te buñ ñëwaatee incha allah dina gën a am solo di wax dëgg yàlla massawu sunu membre yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Louga du saw mii jiite leen ak Yaya Ba bis bu yàlla sàkk ñuy toggal malaat mental yi di war seeni moto di luye seeni oto dem nañ bay luye ay saret di dem di wër malaat mental yi di leen jox ñu lekk yàlla mi dara tëwul nattu wàcc ci seen kaw Mamadou saw mi ak Yaya Ba daanu ci moto ba amee ci ay gaañu gaañu yu metti kon amaana ñu ngi leen di massaw bu baax di gërëm waa association taxaw ñu wéri di ñëpp ñu nekk ci jaspora bi international bi fépp fu waay nekk ñu ngi leen di gërëm jël ngërëm gi nag teg ko ci loxo DG am billaay bu ñëpp meloon ni yow safara gental billaay yaa baax Pape jërëjëf kooku maa koy waxal nit la koo xam ne dañuy ñaan sunu patron boobu yàlla sàmm ko guddal fanam ndax patron bu doxalul doxinu patron la boo ci biiram sax doo xam ndax mooy patron kon am loo mën ren balaa déwén yàlla na mën lu ko raw yow ak équipe bu Dakar Buzz yëpp ndax Dakar Buzz famille ñun ak association an taxaw daal ñii rek bàjjee na rek yàlla yàlla def jàmm kon ma jox ko cinquante mille nga defal nu ñaan rek ñu daw ba bu dikkaatee di nga xam ne dikkaat nan euh, ah kon mbokk ndey koy jur jël ci taxi tey nag bu kenn tee bisu mbégte la man saako jooloo ngeen bëgg a yàq sama émission mais bu leen mara rey dinañ waxtaan fa ndax tey danoo war a bégee tey ñun ñëpp nañu font nañu kafoore danu ñaan. waaw tey ñaan maanaam. maanaam ñaan bi ma doon wax. Mhm. yal na yàlla nangu. te incha allah yàlla dina ko nangu. xam nga sunu xol dafa fees ba mënuñu wax lépp fàddi. macha allah waa yàlla miy gis ti nga xam ne mooy docteur bi wallahi billahi muy ak yéen ndax lii waxuma la waxuma la rek fi ngeen fekkoon Ousmane ak fii ñu ko indi tey ci néeg bi jullit yàlla yi jàkkaarloo ji loolu dong yàlla du ko bàyyi noonu du du asaar yàlla dana leen yokk yàlla dana leen yëg yàlla dana leen fay mboolem jullit bu ci takk rek yàlla dana ko fay ci kattanu yàlla ndax man dama nekk nit koo xam ne boo ma defalee teraanga rek wallahi barki Muhammad ak Pape ñaare Ousmane dana dund wax naa ko ko hôpital ñu toog ma ne ko Pape boo gisee ma ñaan demande ba pare door laa woo njuumte moo waral loolu man wax naa la ko ba pare nag bi ma ñibbi waaw waaw dama koy maanaam waaw incha incha allah gis nga man xoolal ah, Fadel ñi ñi mun nañ ma seede man xale laa waaye li ma maye ci soxna bari na surtout waxuma la kii nag Mariam mi mun na ma seede lu bari ah. kon ah, Aaron incha allah yàlla baax na yàlla na yàlla may rek affaire bi lii mu gën a dolli ko ci kattanu borom bi yàlla na yàlla fay leen bu baax bisimilah kon ñu dugal sunu yéene hoto Haaruna boñ noon Haaruna eh, eh, ngeen baal ma rek aoudu billahi min sharri sheytan irajim bismillahi rahmani irahim din iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirat almustaqima sirat allazina anamta alayhim xayri almahdub alayhim wala dalin amin bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri nafashaati fil uqad wa min sharri hasidin ija hasad bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin yàlla na nu yàlla jàppale